sallallahu ala muhammad sallallahu ala nuru muhammad sallallahu nabiyul ummi sallallahu ala rasulillahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokki Kun Fayakoun TV ñu ngi leen di siyaare bu baax di leen baalaat xaq te di leen ko baalu eh, di ñëw ak yéen ci benn waxtaan bu ndaw ci wàllu jaaro yi ni mi demee wàllu jaaro yi nan lañ koy liggéey ci wàllu jaaro yi lan moo tax képp ku ko takk li nga bëgg nga am ko ci wala képp ku ko takk bu la fekkoon si cinq pour cent yóbbu la si deux cent pour cent jaaro bi moom moo waral loolu ndax jaaro lu doy la waaye ñun sun jaaro dañ lay wax jaaro bu ànd ak sangat ànd ak ubbeeku ànd na kaaraange ànd ak wërsëg saa boo ko takkee sa loxo boo ko takkee sa loxo képp ku lay jox lu bon day këpp boo ko takkee sa loxo di dem foo xam ne ne sa yaram sentiru ko ba jaara bi dafay mel na luy tàng day tàng jaara bi foo tollu boo ko takkee comme yow boo boo danga koy parfum ndax rawaxaan bi parfum la bëgg jaaro bi boo ko takkee doo dugg kaso waaye moytul di tooñ kaaraange total la muy wàllu jaara bi jaarab boo ko takkee lépp loo xam ne ne wàllu jinne la daf lay woon ginnaaw ndax niñ ko liggéeyee moom moo tax ak sangat yi ak sarax yi moo tax jaare bi góor da koy takk jigéen da koy takk mag da koy takk ndaw da koy takk lépp loo xam ne ne projet boo mën a doon ndax jox nañ ko ay artiste jox nañ ko ay footballeur jox nañ ko ay ñoo xamee ne nit ñu siiw si wàllu li ñuy lijjanti wala si wàllu win win nekk ndax dafa doon jaara boo xam ne saw tur moo ci composé wu ak sa turu yaay nga foto sa loxo yónnee ñu ñu xool jox la jaara bi jaara bi nag amul sikar li mu war a am lépp ñun ñoo koy def yow da ngay jël rek tàkk jël ak say sangu nga sangu nga xool nag fi la fekkoon ak fi mu lay yóbbu nga xam ne ne wallahi xam-xam moom moo wóor te ñun suñuy xam-xam dafa wér xam-xamu mag lan yor moo tax luñ la wax boo ko defee gis ko kon jaaro yi ñi ngi koy euh, commencé waat nag si semaine bi képp ku si defaat commande commande yee moom joxe nañ ko ba pare yi nga xam ne ne moo nekk si biir koor gi nag si leen koy liggéey ak si sikkar yin ko war a booleel si koor gi la ñuy gën a am temps kon si leen koy liggéey képp nag koo xam ne dang nga siy commandé rek boo wootee si numéro téléphone yooyu rek pour wàllu jaaro yi la incha allahu rabbi daan ko dugal si écran bi nga woote fi ak foo mën a nekk boo wootee daan la defaral sa jaaro eh, amaleel la ko yónnee la ko wala nga ñëw jëlsi ko boo munte ñëw dana la ko yónnee yor na ay livreur kon nag eh, di leen jégalu bu baax si weeru koor wi di leen ñaanal jàmm si barki yenente bi di leen ñaanal tamit tawféex bu wér a wér a wér si barki yenente bi incha allahu rabbi